fii li fi xew fii li fi xew fii ci suñu commune muy commune de Jaxaay Parcelles Assainies Kër Massar Rufisque un banditisme la waaw moo tax ñu bëgg di interpeller ki nga xamante ni moo yilif réew mi ak ñu mu àndal pour mu xam ne li xew cees ak li xew ci littoral bi ak li xew feneen ak li xew fii bokkul fii banditisme moo fi am Demba Anta Dia moo tax sax ñu bëgg ñu revoir affaire promoteur immobilier yi promoteur immobilier yi ñooy bandi la plupart promoteur immobilier yi problème bi yëpp ñoom la moo tax ñu bëgg kiilif réew mi mu seet mbiru promoteur immobilier yi le problème c' est les promoteurs immobiliers ñoom ñooy problème bi ñun dañoo jënd rek ak SNHLM mais benn waay moo ñëw te wax na ci kanamu ñëpp biñ ko nee à la TFM mu présenté wu dafa ne moom promoteur immobilier la kon ñun génne nañ ko ci famille Lébou parce que bokk ci c' est un bandit ba pare fa ànd ak ñeneen ay xale yu dëkk jaxaay loolu moo ñu naqari ay xale yu juddoo jaxaay màgge fi yeroo fi ñoo ñëw mu jëndal leen ay oto ñuy tabax terrain jàmbur yi di ci am pourcentage banditisme foncier moo fi am dina fekk ñun ñu koy fajal suñ bopp mais li ñu xaw a jaaxal mooy descos buñ ko woowee day yàgg lool mu ñu bala muy ñëw pesum kanam borom moo koy fajal boppam ñun ñu ngi leen di xaar sur le terrain mais monsieur le président ñun daal bëgg nañu nga jël à bras le corps cette problématique de banditisme foncier dont Demba Anta li jaayee acte de cession lay jaayee ak promesse de vente ci suufu HLM acte de cession lay jaayee bi ñu seetee maître Thiam notaire bi ñu seetee maître Thiam notaire ni ko promesse de vente yi ñuy jaayee këyitu ak këru HLM yi loo ci xam mu ne baaxul te gis nañ ci ñoo xamante ni ñu ngi jaay ba tey Demba Anta daal pour mu leer ay gone jaxaay ñu ci ëpp léegi nit day jóge feneen ci Sénégal ñëw naan am na lu xew jaxaay bu ñu ñëwee da ngay gis ku ñëw tey suba mu ñëw di jaay terrain. Il s'agit effectivement de l'affaire qui concerne le 1451R, qui a eu plusieurs rebondissements judiciaires. Le collectif qui est là, ce son des acquéreurs des parcelles auprès de la SNHLM. Nous l'avons acquis de bonne foi. Pour preuve, il l'a même confirmé. Et il a dit de haute voix que nous n'avons pas affaire avec les acquéreurs. Ils ont acquis de bonne foi. Nous, nous avons acquis de bonne foi. Cela veut dire que c'est un aveu de taille. Pourquoi nous sommes là Nous sommes là pour, pour apporter la réplique par rapport à ses propos, pour dire qu'il n'a pas dit la vérité. En fait, ce qui nous a poussé à venir pour apporter des précisions, c'est parce qu'il y a eu des manquements et des insuffisances. il y a eu de l'escroquerie. Le 1451R n'est pas le seul titre foncier de la SNHLM. La SNHLM a 16 immeubles. 16 immeubles plus 4 TNI. Au total, ça fait 20 immeubles. Et le seul immeuble qui a un problème, c'est le 1451R. Et vous savez que le 1451R a été exproprié par l'État du Sénégal le 12 novembre des des années durant. des, des parcelles et que des personnes venant de nulle part se réclamant comme quoi une décision de justice qui viennent pour, jou pour le rôle de gendarme, pour jouer le rôle de d'huissier, le rôle d'auxiliaire de justice. Ils n'ont pas ce droit l'a confirmé. Il a dit que nous avons affaire avec l'État. Si tu as affaire avec l'État, pourquoi venir sur le site et prendre des terrains et les vendre Avec des actes de cession, ce qui est anormal, ce qui est grave. Ils sont en train de vendre des terrains qui sont en dehors du 1451R, ce qui est grave. Présentement, nous voulons attirer l'attention des autorités judiciaires d'être beaucoup plus vigilants.